nga nekk fii ak man saa ne Ramadan Ramadan Ramadan kër bi ngi siy woor. ah ma ne mooy loolu weewu yàlla laa def noonu su ma neexee woor su ma neexee bañ a woor. loolu laa def noonu. Ah. bëgg naa lii man seen toogaay rafet na jàng ci lu nekk nag. dafa koor bi. ñu dafa mel ni weer nekk de. ah nur woo koy kon loolu la bàyyi li nga wax. ah dem bis kii mooy Zeyna. dem ah. la ci kër gi Zeyna. fan yii la fi ñëw yaa ngi ko yaa ngi bett. mais waxuma loolu yow man sa ñaari xarit yi nga daan toog ak kii. ñun de dañoo génn yow. gisoo moo tax tey am tout le temps am nga ku la mën wettali de. dafa dafa rafet ma. ah loolu ngay wax naan. xanaa dama koy mujjee jox rek. moo may rey billaahi. xanaa koy mujjee jox rek. loolu dañ ciy ma ak yow ñoo fa. benn xam nga awma temps damay génn. yaay sama góor. su ma ñëwee daan ci wax. ok bonne journée. ciao. rek. geli wamba kibo kusini marwa ya latere ya samara kibo puni kido mal bole mukuti hale reu yois kibo kuti de akan bahre ade bay na yar sala ade bay fayar sago bahre eh eh Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak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 allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah sayyidina muhammad rasul allah man su ma sañoo ñi de war nañoo gaaw ba tey nekk ci biir taxawaal rek xanaa suuf bi la maa yoon maaleykum salaam ñu yi ñëw xale de dañuy def ah, tey moom damaa soxla dañoo julli tey dañoo julli. dama lekk mburok bër mburok soxla laay. lu leen neex rek ma lekk mburok bër boo lekkee lu leen neex rek lu leen neex an sama an sama beneen tànta bi moom. ndeysaan moom ñu wóor ba heure bi ma ndeysaan. bàyyi ko rek daa xiibu ko rek tey. wallaahi booy bul tijji lii bàyyil ba ci kanam. daa xiibu bàyyil ba ci kanam. defaral nañu ndogu. tey nag loo ñuy sant. tey kay wax dëgg yàlla damaa kontaan ci moom. xale yi damaa kontaan ci moom. Ah. ndax dañu la julli. julli dama leen a woo julli ñu ne. yaa ngi julli ko xale yi eh, julli ñii dañuy julli de. ñi ne seen tos fi newee dafa wax ba ñu ni duñ julli. xelal xelal bi. lan. allah. akbar. ya allah min hamid. allah allah akbar. allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah. tos julli yàgg yi noo ko mënee. eh. amulee julli yàgg. xanaa ba la ngeen waxee nangu ñaan bisimilah bisimilah raayoo leen naa kontaan tey non tey mu wax dëgg yàlla kontaan naa man ngeen a def bettu moon xale yi naa ne yaa yéen a ma bett duñ julli yéen a ma bett pare nga doog a wax ci loolu ci jóg leen te ba muy neex jóg leen jóg leen jóg leen jóg leen. yàlla naa bëgg maa par ci yéen. ay boo ji. ñàkk jom yi yolof yolof te seen yu ñuy. ay boo ji de. tera tera tera tera tera nga nekk fii ak man saa su ne Ramadan. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوم الخريب بقيل نومي فنون